ba mu namoo sampaat président Macky ci jongante 2017 yii di dëgmal ministre de l'industrie et des di maire Aly Ngouille Ndiaye du lot di dooleel APR ci département bu Linguère Maguette Soseka sosoon parti bi gannaaw ba mu mere ba fut delsi na ak ay ñoñom

mu ne leen danaa defar miiru Rantadouli miir bi am na koo xam ne kii tey jox nañ ko marché bi. digle boo xam ne bii président waxoon na ko muy yoon woo xam ne wii dana ubbi diggante Dolli ak Linguère. te boobu it am nañ yaakaar ne bala yàgg dina démarrer. ngir jàppale jigéen ñi ak yeesal yenn bërëb ministre Aly Ngouille Ndiaye làmb na poosam ngir jox leen ñaari machine wallukaay ak ñaar fukki tonnes ciment.